jërë ngeen jëf mbokk internet yu wasaare société ñoo ngi di nuyuwaat encore une fois gis ñoo ngi fii si Medina lu ñu fi di woon tey nag mooy naxar tiis bi nga xam ne dal na suñ kaw waaye daw na tamit képp koo xam ne mooy acteur wala actrice nga rek nekk bokk si wàll série wala lii di théâtre suñu papa dem ba tey jii génn na àdduna ñu denc ko fële sa yoo xam ne moo ngi fële sa Yoff Yoff boobu mu doon dem chaque ajuma tey mu génn jeudi jour jeudi jeudi boobule vendredi bu si topp daal di koy yóbbu foofu sa armée daal di ko fay denc kàddu gi benn la képp koo wax mun la ku baax la woon ku tee la woon waaye tamit ku ñëw woon dëgg la dëgg boobu noonu moo xam ne moom moo ko fekk foofu tey jii de parce que comme ni ñu koy waxee à chaque fois bakkan bu ñam dund dina ñam dee loolu noo nekk dëgg dëgg boobu nag tey jii moo tax ñu daal di koy yóbbu sëdd yooyu xam ne moo doon dem chaque àjjuma lenn moo fi sës mooy ñaari maanaam ñu koy ñaanal bu baax a baax ñaan gi benn lay doon ñu yàlla xaare ko àjjuna jégal ko ay baakaaram waaye tamit ak képp koo xam ne rek fekk na ko fa ak képp koo xam ne rek incha allah rabbi tamit di nga ko fekk lépp ñu koy ñaanal bu baax a baax yàlla xaare ak àjjana si barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mbokkee te nag ci Wassare société lii loo tey waaye tamit di leen jaale bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp saa su ne waaye di jaar bu baax a baax sama cameraman bi di Pape di asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. asalaamaaleykum Pape. gannaaw bañ sa xarit yan kàddu nga mooy nga mën waaw euh, d'abord kàddu njaal jëmme ko ci askan wi kàddu njaal jëme ko ci axlu théâtre yi kàddu njaal itam jëme ko ci yéen ñi nekk ci euh, presse bi médias yi en général euh, ku baax jóge fi nag li tax ma ne ku baax jóge fi mooy que ba sa mbaax weesuwul nga am fitu exprimer wu li nga bëgg wax mbaax weesuwul nga gis lu teguwul ci yoon nga xeex pour mu tegu ci yoon mbaax weesuwul euh, sa xel yëpp nekk ci ñi nga xam ne dañu dëddu nekk ci sëkk ya nga di ziare toutes les euh, deux fois dans la semaine Pape Demba Dramé rek laa gis mu koy def ci artist yi waaw sëg yi nekk Yoff yi nekk fii chaque semaine booba li ëpp na vingt ans Pape Dembalam dafay dem dem di ja di di di nemmeeku ñuy tëdd foofu ñaanal leen du yem rek ci ay mbokkam waaye da yem ci da da ci boole ñi fa tëdd ñëpp euh, mbaax weesul itam nga am sa talent Sénégal yëpp ko nekk na nga am sa talent ba producteur bu jog bu bu gis rek. boo wax man dama bëgg a liggéey Pape Demba donc di forme itam c'est pas seulement un comédien mais également c'est un formateur di former comédiens yi di def ay mise en scène mise en ni mu def yëpp boo koy xool ci affaire wu ñiy génn àdduna la li mu créé yëpp c'est sur les morts sur le morts essentiellement les créé ay spectacle loolu lu càggoon ne dafa leen bëgg a dafa bëgg def terre sur les moo rek mais daf la ñaanal ñaan la ñaan la c'est une forme de prière semence pour ñooñu suñu borom yi jéggal leen donc aujourd'hui bu yàlla dogalee tey mu dem fekk ñooña ñu ñaan suñu borom bi defal ko lii mu namoon ci ñi génn àdduna suñu borom bi defal ko lu ne mel fu mu tëdd c'est un artiste de talent parce que gis nañu wax dëgg yàlla pièces yu bëri yu mu joué ba mu fa gën ndaw comme Aïda Souka yéen ñi xamu leen pièce boobu de dans doo télévision ñun suñu ko jëkk a découvrir ñun waaw Aïda Souka pièce boo xamante bi ñu ngi ko doon ñoom ñu ko daan répété ak daal jamonoy tey fële salle bi ñuy wax salle Robert Fontaine au conservatoire école des arts ki ñuy wax Moussa Diouf professeur Euh, de la mooy woon chef division art dramatique moo leen doon encadré yàgg la ça c' était si je ne me trompe ça doit années quatre vingt euh, kiiwul donc il a tout fait ça ba ci bi ñu mujjee créé mooy le Sacre de Ceddo di pièce de théâtre bu Alioune Badara Bey yooyu dëgg yàlla euh, mu incarne ci rôle bu ama am solo. waaw boo xamante ni ba léegi ñu koy fàttaliku kon nag kuy wax ci Aliou ci euh, Pape Demba doo wax lu du mbaaxam fugg bi mu àndal xadar bi mu àndal quand il monte sur scène ni mu koy vivre sur la scène noonu la koy vivre dans la vie courante hein au quotidien il est comme ça waaw mais ku baax la kon nag dañu ñaan suñu bi xaari ko àjjana teg loxoom ci njaboot gi mu fi bàyyi waaw te di ko ñaanal nag. ñun ñëpp wax dëgg yàlla vraiment loolu la amoon ci kàddu yi néew rek yu may sërëxal ci. salaamaaleykum maa ngi leen di fay waa Wasaare ah. Wasaare TV. donc maa ngi leen di nuyu di leen fay. gannaaw bañ la jaalee bañ sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur ba Demba Lam kàddu yi ñuy yëkkati ci moom day day day général képp kuy artiste rek kàddu boobu ngay am ci moom mooy lan mooy ku baaxoon la ku yaatu woon la ku gëmoon li mu doon la ku bëggoon aar la ku mënoon a partager aussi li ko yàlla mayoon ci xam-xam ci ndaw ñi surtout ndaw ñi doog jóg ba ci ñun ñii nga xam ni sax Euh, ay mag lañu fu ñu gisee moom rek ñu ngi partager ak moom ci wàllu aar noo def di nga jëlee ci moom loo xam ne dina la jariñ sa carrière fi nga jëm donc euh, loolu je pense que képp kuy artiste comédien ba ci beneen artiste boo xam ne du comédien sax kàddu googu ñoo koy bokk ñun ñëpp ndax da ko wane jëfee ko du doon lu mu def théorie kese da ko pratiquer donc fépp fu artiste bu ndaw di nekk dem na ci moom fépp artiste groupe artistes yi surtout festival yi di encadrer di joxe conseil ku mu dajee it comme li ma wax sànq rek il faut mu am lu mu la jox loo yóbbaale ci wàllu métier bi ñu nekk ci wàllu sa bopp ñu lu bari ñu jàngat ko ci moom nañ gis artistes yu bëri des fois dañuy bàyyi ba liy am Sénégal du bëri commencé jóg est-ce que tey jii ministre de la culture liggéey mu war a def si artistes yi surtout ma seen génération ak ñoom moo ngi koy def. waaw xam nga affaire bi moom toujours ñu ngi koy wax rek di ko wax di ko wax dafa des torop des na ci ñun artistes yi d'abord ñu gën a jàppoo gën a nekk benn gën a toog réfléchir xalaat ci l'avenir du métier ak aussi li nga xam ne moom moo lay téye ba boo retraité wala nga bàyyi wala nga décroché wala am lu la dal loolu mën laa couvrir loolu day demander benn réflexion bu approfondi à notre niveau ñun et au niveau de l'État ñu ànd ko xalaat ko tant loolu amul moi je pense que problème yi day gën a am mais sant yàlla quand même que yàlla jaam bu mu sàkk rek. Euh, noo def mu utal la loo xam ne yaa ngi ciy dund yaa ngi ciy tedd yaa ak sa njaboot euh, demande aide du ñàkk ñu dimbali la du ñàkk ci àddina waaye nag na fekk buñ lay aider fekk yow lu ndaw moo lay dese ñu dimbali la loolu lépp nag mooy li ma wax sànq li koy indi rek mooy ñun ñëw daje jot na nag ñu daje toog waxtaan. lépp képp kuy artiste comédien képp kuy infrastructure bi nga xam ne étatique nga di liggéey les artistes comédiens ñu war a mën a toog nag waxtaan réfléchir sur sur euh, l'avenir waaw merci merci beaucoup yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ci barke sëñ Babacar si barke yonent bi merci euh, que franchement man euh, yii du suma kii parce que xam nga bésu naqar la parce que dañu perte koo xam ne mënatuñ ko am dans la vie euh, su ma neexee mën naa ne ci métier bi nit ku ko ci gënoon dëggoo amul parce que jéemul xool lu neex doomu aadama dëgg la doon wër te tey théâtre Sénégal su egg see fii moom bokk na ci pionnier yi nga xam ne ñoo ko fi indi parce que su ñuy wax théâtre sénégalais arcote du ci gën arcote ba muy metti mag ñëpp suñu mësaan ñëw ku nekk da ngay tegle sa tànk seul moom moo doon ñëw dugg yéeg ci kaw scène bi di former xale yi ba fi ñu toll nii képp koo xam ne taxaw nga fii rek euh, àddina di la dégg rek moom am na ci part de responsabilité c'est que je je ne veux mënu ma wax leneen mercredi non jeudi passé ñoo nekk Géejawaay ci festivalu tan bi donc il nous a trahi quoi c'est ça yan yan kàddu ngay euh, defe naa ne li ñu mën a wax ci Pape Demba bari na bariwul bu ñuy wax euh, expérience bu mu am ci métier bi ñun dañuy wax vécu bi ñu dund ak moom Pape Demba li paa wax ni dafa wér ku ragaloon àq la ku bëggoon bis bi mu demee tey la ajuma bi moom da ko fonkoon te ko fonkoon nit la moom Pape Demba da wax ni bu leen dara jaral dara ci àddina mu a man je préfère mourir que de vivre je à genoux loolu da ko daan faral di wax je préfère mourir debout que de vivre à genoux ndax préserver ngoram Pape Demba noonu la meloon nit bu baax la woon man wàlliw bi laa ko daan woowee wàlliw la woon kooku wax ci moom dafay xaw a diis mon frère wax ci moom dafay xaw a diis quoi vraiment wax dëgg yàlla. yan kàddu yi la la mujjee dénk ak yan kàddu ngeen mujjee li ëppoon ci ay kàddoom fils góorgóorlu loo mënti def na nga gëm sa bopp loolu da ko bëggoon di wax boo ko nuyoonte na ko père nuyu la bu la laxasoo da ngay sentir ci biir xolam mooy wax mu ne la fis góorgóorlu te na nga fexe ba na nga gëm sa bopp aar bi kenn moomu ko Pape Demba da ko doon faral di wax billaahi wallaahi tallaahi il a beaucoup fait pour le théâtre du Sénégal Arcos tey bu ko ñëpp xemmemee di ko décentraliser ay département département ngay dégg benn Arcos moo fi nekkoon dakaar ñun ñooy première promo bi nga xam ne danaan simmeeku moom yéeg ci kaw scène bi dañu fa fekk y avait ñoom Khadim ngay gis Billy Babacar Wali ah euh, y a autant de personnes mënuma lim ñi fa nekkoon dañoo bari woon tey koo ci gis yaa ngi koy dégg Pape Demba dafa contribuer c'est-à-dire ñun suñu socle suñu base moom la woon Pape Demba il nous a initié nous tous yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljana firdawsi Pape Demba yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljana firdawsi tey gën na àdduna ngi woon loolu loolu waaw jege naa ko waaye am na ñu ko gën a jege mais ñun dañuy wax rek li ñuy dund ak moom li ma gën a marqué ci moom mooy Pape Demba mën nañ ko wax bis bu ne ñemewul woon àq mën nañu ànd ñu fay la fay ko ngeen tolloo liñ leen fay mu dindiwaat ci liñ ko fay di la ci may moom il était comme ça il était comme ça ba pare xaritam ñu mu doon àndal promotion mi ñoom euh, Pape Matar ak ñooñu il les aimait billaahi wallaahi taalaa il les aimait ay démbi Fall pab Demba bu leen doon xool day kontaan billaahi il les aimait tellement ñi ma doon àndal promotionnaire am yi nga xam ne moom da leen bëggoon li nga dégg aar bi ñii du ñu laalante ñii nangam nangam ñoom c'était pas leur cas il les aimait tellement billaahi wala ay Demba Fall Pape Matar Fall dem ba da leen a bëggoon c'est grande perte. bëgg liggéey fonk li mu doon fonk liggéey koo xam ne kafewul tey théâtre dara dara ndax théâtre bu doon léppam ak noo mënti mel noo mënti toll. dëggu rek moo wóor te wax la dëgg day doon loo xamante lu yomb lay doon ci moom xanaa nga jubal rek kon di nga am bu pour nga jot diggoom jikkoom daal na fekk defoo loo xam ne lu jub la waaw yàlla mi dara teewul moom rek moo am moo mën yàlla na ko yàlla def mu tàbbi ci àjjana fi daw su mboolem julli te mu mën ti dem ci barke lan moo la a remarqué la gën a marqué ci gën a euh, li ma gën a marqué mooy nit koo xam ne ku woyof la woon woyof ba pare li kuy fenn du ànd ak moom yambar du ànd ak moom ku dëgguwul du ànd ak moom ku gëmul li ngay def tam doo ànd ak moom ci wàllu théâtre bi ñun xam nañ ko ak noo mënti toll boo ñëwee ba ci moom xarit du mu doon sa xarit du mu doon sa grand sa waay bu ñu xësee ba tàmbali liggéey bi loolu jeex na tegu ci yoon rek liggéey liggéey bi ba ñu pare ñu soog a àndaat ku baax a ngi nii ku baax dem na un grand monsieur un très grand monsieur même wallahi ko yëgee metti mu metti ñu tiis lool lool lool waaye nag ay jullit lañu ay jaam lañu dañuy nangu dogal moo tax li yàlla bu nammee dara ci jaam bi jaam mënu ci dara ñu nangu ko rek waaye metti nañu waaye alhamdulilahi rabil alamin la ñuy wax yàlla na yàlla def mu tàbbi ci àjjana firdaws ci barkent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nit boo dee yow dong ak yàlla yéenay toog ak ña lay wax ña lay laaj ngoon soo dëgguwul soo dee da ngay am problème te Pape Demba dafa nekk nit ku dëggu ku am fulla ku am faydu ku am pasteef ku joxoon bépp doomu aadama cër man soo gisee man naw ko ci loolu laa ko nawee dafa doxoon doomu aadama yëpp cër xeebul xale xeebul mag foo mu yendu xale ka fa yendal Pape Demba alalam du ko boole doomu aadama Pape Demba commencé def ay festival yu xam ne mu ko doon def chaque année te saa yu koy def artiste bu mag bu ndaw képp koo xam ne yaakaar na ne yow mi mérito nga mu sargal la daf lay sargal man mii di wax ak yoon sargal na ma ñaari yoon. man naka Pape sargal lu doy mu ne ma non non du doy parce que yow dama laa bëggal sama parce que nga am ful am fayda ci li ngay def te man su ma gisoon ko Demba jour ba jógee ne dafa daanu feebar non dama ne c'est pas possible de Demba Pape Demba ku xool bésam bi xam ne nitu nit ñi la woon ku xool bésam bi xam ne nit ñi bëggoon nañ ko ku xool bésam bi xam ne nitu aljana la parce que Pape Demba du wax safaan wa Pape Demba du génn safaan wa ci gémmiñam Pape Demba lu baax lay wax doomu aadama bu gisee sax nga xaw a tarxi sax ngay góor jigéen ak noo mën a toll dina la woo ci ruq kenn dul ne li ma gën a neex ci moom bu amee lu ko naqar caw du loo ko si biir mbooloo dalay woo fu kenn newul na la maay sister tey de dérapé nga ndax tey li nga def wala li nga wax bu ko waxee noonu defee que nii waxee que nii même ba si jeu bi nga xam ne ñu ngi koy def théâtre sax soo si dérapé nga si loo xam ne warul wax warul jaaduwul dalay woo na la lii nga wax bu ko waxati ndax lii ñuy def kilifa aada yi kilifa diine yi ak personnalité réew mi dañ koy seetaan ndax lu ñuy def dem na ba bitim réew ngoon rafetal leen ko ngeen jaay Sénégal jaayan bu rafet ngoon nga xam ne kooku nitu dëggu la nitu yàlla la. waaw loolu à notre niveau nous les artistes ñun xamante nañ suñu biir te ñu ngi defalante suñu biir ñu ngi jàppalante suñu biir dafa am nag loo xam ne ñun suñu doole ak suñu yéeguwaay eggu fa parce que ni ku nekk da nga am ministère. ñun suñu ministère suñu tutelle ba ministère de la culture avec la gouvernement du Sénégal ak notre euh, président son excellence monsieur Macky la am na foo xam ne pour ñu xam niveau artiste bi ci daa dépend ñoom parce que pays yu bëri dañuy organiser ay festival yoo xam ne chaque un an wala chaque deux ans ñu def ko te loolu lan moom ñu koy def pour wane seen réew wane seen artistes li nga xam ne ñu ngi koy def ñu mandargal leen ba yeneen pays xam ne ah Sénégal kat seen artistes am na fa ñu toll mais loolu bu ko ko gouvernement bi deful ministère de la culture def ko ñun suñu biir ñu ngi koy defante suñu biir la preuve euh, euh, jour bi daanu feebar tan bombe moo ay woon festival fa la koy euh, bi daanale te tan bombe jour bi muy def festival bi am na artiste bu bëri yoo xam ne da leen honoré te loolu day fekk artiste bi liggéey li mu war a liggéey def li mu war a def nag suñu liggéey parce que métier mi yaatu na ñëpp bëgg nañ si bokk mais ak loo ci bokk-bokk ñun xamante nañ suñu biir xam nañ kii et kii xam nañ kii li mu mën ak kii li mu mënul ak kii ak kii n'est pas ngoon bu fekkente ne loolu am na ñoom suñu biir ñoo koy defanteel du woon ñun ñoo ko war a def suñu biir mais c'est le gouvernement et notre ministère de la culture ñoo waroon def loolu ba nga xam ne na xam ne ah Pape Demba Lam mi kat li muy liggéey àddina gis nañ ko euh, bitim réew gis nañ ko parce que ñoom ñoo ñu war a dooleel ñoo ñu war a jàppale ba suñu liggéey war a gën a mën a fes waaw. waaw parce waaw xam nga côté boobu euh, Pape Demba Lam ñëpp xam nañ ne jàmbaar la ci waaram te ñu xam ne ne amul ministère ministre bu fiy toog de la culture te Pape Demba xamantaw la ak yow miinante nag yow moom da doon ndox si ministère de la culture pour mu jàppale yeneen doomu aadama yi nga xam ne xëy na seen doole jotul seen digg ginnaaw parce que nous les artistes xëy na suñu liggéey am na fu mu waroon toll du ñu am problème boobu mais yàlla def na ñun suñu gëm-gëm boo xam ne bëggatuñu sax nit di feebar ñu koy laajal ket si te boo xoolee sax ñu bëri feebar nañ fi kenn laajatu leen ket parce que nous les ñoo jóg na loolu dañ koy teg si suuf ndax ñun suñu métier mi kenn du ko ñooy def suñu devoir la ñu am mu néew ñu bëri ñu jàppale ko say mbokk ba nga xam ne feebar nag wér yàlla moo koy yor mais li suñu devoir dañ koy def ministère de la culture li si devoir yi macha def na ko si ndax loolu ñu dox la lu ñu wax la ba ñu nangul ñu ko di xaar nag suñu yeneen wareef yoo xam ne ñun ñoo ko moom pour nga jox ñu ko mais actuellement nii fii ku fi feebar ku ne xanaa jàmbur yàlla jóge si mbedd mi ñëw di ketal mais dañ ne ñun ku feebar suñu biir kenn dutu la ketal ñun ñu jóg jël en charge sa feebar ak lu say mbokk am ak waaye yàlla bu dégg na feebar nga te bëgg la bëgg la jàppale mu dugal ci loxoom mais ket bi moom dafa doy. waaw waaw waaw li may conseillé xale yi rek. à chaque fois mooy li ma leen di wax parce que ñi ma xam xam na ne yàgg naa ci théâtre bi yàgg naa ci aar bi 1982 ba léegi maa ngi daaray koy ko sama pré sama directeur artistique yi toog Pape Demba Ndiaye du ma bàyyi ma fen ñun dañoo rampe dañoo raame dañoo xooslu pour accès fi ñu accès mais xale yi tey nag ah seen chance la que affaire bi innové ba léegi sax ñu ko rampe ku jaar école ku jaarul école léegi dañu seet ku taaru ku jekk rek ñu ne la kaay mbir mi yow la fekk mbir mi nekkul foofu ndax loo doonu taalibeem doo doon sëriñam il faut xale yi dem jàngi métier mi xam na ñuy comporté wu à la télé xam ni ñuy waxee à la xam na ñuy toogee à la xam na ñuy jàkkaarloog doomu aadama yi leen seetaan à parce que ñun li ñuy def du métier saaba saaba métier bu noble la métier bu set la métier bu rafet la ngoon ñoom dañoo war a jàng pour rafetal suñu métier ba ki kay seetaan war a xam ne ñii kat li ñuy def du caaxaan war ñoo mën a nawloo man de dama part personnel dafa fois man man li may def man ku ma nawloo ma nawloo la ku ma nawloo nawloo la parce que man xajamaluma métier mi saltalu ma ko def ma lu ma sa warul def lépp lu ma sa war def mu rafet maa ngi koy def parce que suñuy doom suñu koy seetaan ay ñu nekk bitim réew dañ koy seetaan te lépp lu fi doomu aadama def si télé bii archive la ëllëg da nga toog ba nekk ak say sët màgget am 110 ans say sët di ko xool naan waa sama moo doon def lii bu rafetul nag gàcce rek lay doon maa ko chaque jour xale nañu rafetal métier mi di ñaan yàlla kii fi jógee yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal te am naa si yaakaar ne yàlla dina ko yërëm ndax mbooloo mu toll nii fu mu nekk yàlla yërmande la fay def ngoon Pape Demba ak ñi ko jiitu yal na yàlla jéggal leen yal na yàlla yërëm leen yal na yàlla wala nag Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun ñi fi des tamit si métier mi yal fi yàlla bàyyi ñu gën def métier mi di gën a yeew doomu aadama yi di gën a kontaan doomu aadama yi ah yàlla may ñu kontaan ak man-man ba nga xam ne lépp loo xam ne nësër nañ ko rek suñu métier mi yal nañu ko yàlla defal daraja xanaa tuuti mais dara du hasard euh, parce que Papa Demba sama turandoo ku bëggoon aar bi la donc euh, mën naa ne rek dafa dem ba jeex parce que ci kàddu yi ma taataan il paraît que affaire bi mi ngi si benn spectacle festival bu ñu kii woon foofu la amee malaise ba keroog démb bi muy génn àdduna donc daal Papa Demba Ah, dem na daal ba jeex. bon man nag euh, feebaru Papa Demba yëg naa ko yéex naa ko yëg daanaka. Euh, jeudi la gaañu man mardi laay soog a yëg ne feebar na mais d'habitude daal bu yii musaan am autorités yi daal nañ si jàpp ministre bi surtout le ministre actuel Aliou saw parce que cas yi ñu mujj a am yëpp ay Bas Jaxate ak ñooñu yëpp ministre bi jàpp na si donc euh, je suis à peu près bu fekkee yëg na ko waa jàpp na si nag quand loolu moom mën naa ko seede moom ci boppam moo ma ko wax ne ma chaque vendredi dafay dem cimetière abattoir jege fa dem yoof te daf ma daan wax ne saa yu ma demee yoof foog ma aw si bàmmeelu Cheikh Tidiane Diop euh, ñaanal ko moo tax ma ne dara du hasard vendredi bu nekk la daan dem tey ji yóbbu nañ ko muy vendredi mu tombeek ñu yóbbu ko euh, sa armeel yi nga xam ne chaque vendredi ma nga fa donc daal mën naa ne Papa Demba léppam misaal la déjà fi mi feebare si spectacle jour biñ ko robee vendredi bi nga xam ne chaque fois mu nga woon si fi ñu ko rob tey jii mais doy na kéemaan daal vraiment waaw. déjà li ma leen di dénku rek mooy ñu jël si qualité Pape Demba bi nga xam ne moo fi jege tey di référence Euh, utul woon si aar bi xaalis utu si woon siiw daf ko bëggoon dafa nekkoon si moom passion dafa nekkoon si moom vocation donc li may jëkk euh, message bi may jëkk wax jeunes yi ñi bëgg a def carrière bi mu def mooy ñu bëgg ko d'abord buñ siy dugg na nekk par amour lépp loo xam ne da ko bëgg di ko def franchement dina yomb yaakaar naa et boo demee tamit ba yàlla may la si tur yàlla defal la si ndam nga am humilité c'est extrêmement important ko nga am humilité tey xam ne yàlla moo la ko defal am na si yeneen moroom yoo xam ne yéen a ko defandoo te yàlla deful ñu siiw donc ndam li la yàlla may mayu ko ñeneen ñi donc da nga koy sant yàlla nga humble quoi comme Papa Demba ko humble la